faits euh, yi procureur wax euh, sont avérés euh, lan mooy si yow yan crainte nga am. xam nga déjà bu ñu toogoon ba jógee fii te évoqué wuñ le cas de Gora Diop yàlla na ko yàlla yërëm. le cas de. Gora Diop. ok Gora Diop le 16 la gaa la gaañu yàlla na ko yàlla yërëm. dafa mel ni procureur waxu ci. Gora Diop mooy. Gora Diop mooy le jeune là qu'on a tiré au Parcelles Assainies. ana pick bi kan moo ko doon dawal ñi ñoo nekkoon ci biir. Mhm.